yoo xam ne dafa mën a jur lu nekk ci réewum Sénégal mu naqari taalibe Serigne Touba yépp ba ca njëkk mooy jëmi Idriss Seck ji nga xam ne dafay jël ay taalibe Serigne Touba di leen fay di leen monteloo ay vidéo ak ay audio ñuy wane ne ay tijaan te duñ ay tijaan loolu dafa naqari yoonu murid yépp ca jublu ci dara nag lu dul jaxase tarixa yi te ku ne xam na ne tariixa yi ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñu roote mu subhaanahu wa taala kon bu fekkee ne ab jullit lay mbubboo loolu jëf la joo xam ne du jëfi jullit jëfi yahud la ak nasaraan te ku ne xam na ne nit ku jaxasoo ak yahud yi la moo tax mu yor jikko jooju mu yor ñaareelu point bi mooy li nga xam ne mooy actualité muy mbirum Sëriñ Xaadim mbusu ma ciy ndokkeel doomam bu baax def na ci ab sorte yi ci dem bu ma juumut moom doomam jooju moo ne Idrissa Seck moo reylu Serigne Khadim Bousso te ku ne xam na ne Serigne Khadim Bousso sëtub sëriñ Touba la sëtub Soxna Jaar la sëtub sëriñ Bousso bi la. kon nag may laaj ñi nga xam ne ñoo sant Mbàkke ak Bousso lan mooy seen taxawaay ci loolu ginnaaw bi loolu jàllee tamit may laaj tamit ba léegi njaboot gi nga xam ne njabootu Serigne Saliou lañ. di ay dongaam yi nga xam ne moo leen defar jàngal leen yar leen man mii ma bokk ci ñoom jàngal yar ma Idriss Seck bi dem bay gaarwaale sëriñ bi ne an nasaafatu min al iman set dafa bokk ci gëm yàlla mel na kon day am lu ñuy tuumaal sëriñ bi loolu lépp nekk ay jikko yoo xam ne di jikko yu rafet du jikko yu jullit ma laaj nag yéen dongoy sëriñ yi nga xam ne sëriñ Saliou leen defar yar leen lan mooy seen taxawaay ci loolu beneen point bi nga xam ne nag moom laay tëje mbir mi mooy mbirum Abdoulaye Wade nga xam ne dafa ñëw Sénégal uniquement ngir taal réew mi nee na ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ Mouhamadul taxaa ñaan na ko ne na jàmm am ci réew mu lànkal ko loolu ne day taal réewum Sénégal ma leen xamal ne leen loolu defu ko ci coobaree boppam jabaram bi fi di ab yahud di ab nasaraan moo ko sant loolu ci ay information yu leer la daf koo xamal ne ko nan dem Sénégal nga jaxase réew ma ndax awma lu dul yow amul ñaari doom te nekkul Sénégal kon nan dem nga taal réew ma ndax yow sa sag dee jot na faatu nga ba pare donte sax taal ga sa bakkan da cey def sax jar na ko ma leen laaj nag ki nga xam ni yitteem jëpp mooy taal am réew ak ki nga xam ne yitteem jëpp mooy rey koo xam ne ci deretu Sëriñ Tuubaa la bokk ndax ñooñu jar nañoo topp seen ginnaaw.